wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibe yi ci kanam banxaasam bi tudd commission finance ak sous commission gestion de fonds ñu ñëwoon tey di leen jottali li fi jot dugg ci Touba ci kanam ci weeru décembre deux mille ñu tàmbalee ko ci Touba. ci weeru décembre deux mille vingt mi ngi toll ci quatre li fi jot dugg mi ngi toll ci quatre vingt dix neuf millions sept cent vingt huit mille cent vingt neuf bu dee ci Wave mooy soixante dix huit cinq cent quarante quatre trente trois dix mille ci Wave plateforme mooy bi nekk ci application Wave bi cinq millions six cent cinquante cinq mille deux cent quatre vingt un bu dee ci muy soixante dix huit cinq cent quarante quatre trente trois trente trois. un million trois cent cinquante mille bu dee Orange Money plateforme bi muy jees cent quarante quatre jees six cent vingt et un jees six millions six cent vingt mille sept cent quatre vingt bu dee ci Ndakaaru ci njiitul bàyyi Serigne Bousso ak Serigne El Hadji Ndaw onze million huit cent cinquante cinq mille ci Mbakke Adja Dior Gaye Serigne Mama Fall ak Soxna Mbenn Mbakke deux million deux cent soixante dix neuf mille bu dee ci Daaru Salaam Soxna Khady Dieng soixante quinze mille ay relaaw ca Fuuta ci njiitul sëriñ Xaadim Sow vingt cinq mille bu dee ca Casamance ci njiitul moom Mamadou Xari Guèye cinquante mille croisement Diaroumbe moom itam ca Casamance la sëriñ Modou Maxtaar Mbay cent un mille daayira Baabul di nekk ca Añam ca Fuuta moom it cent mille francs Daaru Gay njiitul soxna Xadi Gay quatre-vingt-cinq mille Daaru Muxti ci njiitul soxna Muslim Mbàkke cinquante mille bu dee ci Daaru Salaam Jogo njiitul sëriñ Basiiru Siise cinquante mille jëm jàlle sëriñ Kàbbu Kebe dix mille francs ci njàppandal soxna Abi Fay vingt mille ci njaareem ci njiitul soxna Ndey Njaay Baay Faal soxna Daba Mbàkke un million cinq cent vingt mille ca Jogo Jéeri soxna Xadi Bey trente cinq mille ca Fuuta dëkk bu ñuy wax Unaare ci njiitul Sëriñ Mbàkke Lo deux cent mille ca Bokkilaaji ca Fuuta ci njiitul sëñ Mouhamadou Fadilou Dia cent cinquante mille ca Gasaan soxna soxna Faati Mbeng quarante cinq mille ca Goudiri Sëriñ Dam Ba quatre cent vingt mille ca Joal Sëriñ Basiru Thiaw quatre cent cinquante mille bu dee ci Kaolack ci njiitul sëñ Moustapha Touré deux deux cent soixante dix mille ca Kébémer Serigne Gora Sill un million quarante neuf mille ca Kédougou Serigne Modou Lo cinq cent quatre vingt dix mille bu dee ci xombal ci njiitul soxna Xuma Touré cent trente trois mille ca Kolda Serigne Moussa Sène cent vingt sept mille ca Louga ci njiitul Serigne Moustapha Bassirou Mboup deux millions quarante mille francs mu dee ca Madina Touré ci soxna njiitul soxna Oumy Mbacké Serigne Fallilou deux cent cinquante mille. ca Matam Serigne Ndiaga Diouf 47000 ca Ndiayane Mbakke ci njiitul Soxna Ka 50000 ca Mbour Serigne cinq cent 1 million 566000 mu dee ca Mesere Serigne Mbak Soxna Bousso Diagne 23000 Modéri Serigne Bassirou Ndiaye 100000 francs ca Ndiawara Serigne Cheikh cinquante 50000 ca Njumaan Soxna Maam Bousso Ngom 27000. bu dee ca Ndobel lay Serigne Fallou Fall vingt deux mille bu dee ca bu dee ca soxna Maguette Jiite trois cent vingt cinq mille francs ca Ngunjaan Serigne Modou Thiam cent cinquante mille Ross Béthio Serigne Alioune Ñing ak ñi mu àndal ñëpp quatre cent douze mille bu dee ca Ndar ci njiitul Serigne Ridial Seck ak soxna Rama Fall sept cent mille francs bu dee ca Saalum ca fu ñuy wax Kuccaba ci njiitul Serigne Kabbu Ndiaye Serigne Keba Ndiaye vingt-neuf mille ca sanc ba Mambe ca Fuuta moom itam Serigne Khadim Niang soixante mille bu dee ca Sema 3 ci ñii la ci région de Kaffrine Samba Ndiaye cinquante mille francs bu dee ci Taïf Mbacké Serigne Jibi Sare cinquante mille ca Tambacounda Serigne Adama Niass sept cent cinquante mille ca Thialé Cayenne Soxna Ka quatre-vingt bu dee ca Thiès ci njiitul sëriñ bay Sall neuf cent trente mille bu dee ca Coor Jandeer sëriñ Seex Bey cinquante deux mille ca Touba Belal soxna Soodo cinquante mille ca Touba Jawbe moom itam ci Casamance la sëriñ Baara Guèye ak mbokk yi fa nekk cent mille francs bu dee ca Wélingara sëriñ Mbàkke Guèye cent cinquante mille francs versement anonyme mooy ñi nga xam ni dañoo dem ci indi seen addiya te duñ wax seen tur ndax suñ ba dañoo barkeelu ñoo ko bëggee noonu quatre millions trois cent quarante neuf mille trois cent quatre vingt huit moo ci dugg ci weeru décembre deux mille vingt extourne frais mooy frais yi nga xam ne banque bi da koy delloo da koy jël di ko delloosiwaat ci weeru décembre mi ngi toll ci cent soixante seize mille quatre cent quatre vingt six kon boo jëlee li nga xam ne moo dugg ci zone nationale muy ci biir réewum Sénégal ci weeru décembre deux mille vingt mi ngi toll ci cent quarante huit millions deux cent cinquante cinq mille soixante quatre francs cent quarante huit millions deux cent cinquante cinq mille soixante quatre francs. retour espèce mooy yi nga xam ni dañ koy jotoon a génne te am lu ca des bu dee ci jamonoy màggal gi commission massification lu leen génne loon desal nañ ci trois millions neuf cent quatre mille huit cent dellu si na ci ci compte yi. commission logistique moom it desaloon nañ ñeenti junni vingt mille francs. commission communication moom itam budget ci màggal li ci desoon mu ngi tollu ci trois millions cent cinquante mille trois cent kon boo boolee yi nga xam dafa desoon te ñu delloosi ko ci jamonoy màggal gi mi ngi tolloon ci sept millions soixante quinze mille cent francs bu dee li tàmbalee ci bitim réew li dugg ci compte Touba ci kanam ci weeru décembre deux mille vingt ñu tàmbalee ko ci zone Asie ci Japon Serigne Cheikh Jigal Diop trois cent soixante dix mille francs kon euh, continent asiatique trois cent soixante dix mille francs moo fa jógee ci weeru décembre deux mille bu dee ci zone Amérique ñu tàmbalee ko ci Canada Serigne Pape Amar trois cent cinquante mille francs ci Brésil Serigne Cheikh Ndiaye jëwriñ huit cent dix neuf mille trois cent ci États-Unis d'Amérique ci njiitul Serigne Sonia bu Seck deux million cinq cent onze mille francs ci Argentine Serigne Pape Soda Sey cinq cent quatre cinq mille huit cent kon boo jëlee li jóge ci continent Amérique ci weeru décembre deux mille vingt mi ngi tollu ci quatre millions deux cent soixante six mille cent francs quatre millions deux cent soixante six mille cent francs bu dee ci continent Europe ñu tàmbalee ko ci Russie ci njiitu Serigne Xaalis Seck ak mbokki taalibe bi fa nekk cent onze mille six cent francs ca Suisse Serigne Ndiaga Aw trois cent soixante onze mille ca Belgique Serigne Abbas Dieye un million trois cent quarante mille bu dee ci Italie ci coordination bi. 43 millions 181 mille 47 francs bu dee ca France ci coordination bi 3 millions 500 mille 697 bu dee ci Espagne Serigne Malick Dieng 5 millions 825 mille 552 francs kon boo jëlee total lu jóge ci continent Europe ñëw ci Touba ci kanam ci weeru décembre 2020 mi ngi toll ci 54 millions 329 mille 896 54 millions 329 mille 896 bu dee ci zone Afrique ca Côte d'Ivoire Serigne Mor ak mboolem taalibé Côte yëpp 1 million 250 mille ca Gambie ci njiitul Serigne Khadim Thian 2 millions 30 mille francs bu dee ca Gabon njiitul Serigne Pape Ciss ak mboolem taalibé ya fa ya fa nekk 308 mille 800 francs ca Maroc Serigne Albouri Seck 301 mille francs bu dee ca Mali ci njiitul sëriñ Alioune Waaj un million cent trois mille ca Mauritanie sëriñ Ibrahima Sarr ak mboolem talibé Mauritanie un million six cent vingt cinq mille francs ci Afrique du Sud sëriñ Mor jeng un million sept cent soixante quinze mille francs bu dee ci Cap ci njiitul sëriñ Abdoul Ahad Amar cent quatre vingt dix mille huit cent francs ca Guinée Bissau ci njiitul sëriñ Mor at sëriñ Modou at Seck sept cent cinquante mille francs bu dee ca Tchad ci njiitul Serigne Mori Silla cent mille francs bu dee ca Togo Serigne Modou Mamoun Dramé quatre vingt onze mille francs bu dee ca Guinée équatoriale ci njiitul Serigne Khadim Diop ak euh, mbokki taalibe yi fa nekk six cent quarante cinq mille francs kon boo jëlee li jóge ci continent Afrique ñëw ci Touba ci kanam ci weeru décembre deux mille mi ngi toll ci dix millions cent soixante dix sept mille six cent francs dix cent soixante dix sept mille six cent francs boo jëlee nag total encaissement carte ak reçu li nga xam ne moo dugg ci biir Touba ci kanam ci weeru décembre deux mille vingt ci weeru décembre deux mille vingt mi ngi toll ci deux cent vingt quatre millions quatre cent soixante treize mille sept cent soixante cent vingt quatre millions quatre cent soixante mille sept cent soixante. bu dee ci wàllu jaayante yi ndax ku nekk xam na ni ba léegi liggéey yi ñu tàmbali woon mi ngi wéy li ci ñëw ci jaayante yi ci weeru décembre deux mille vingt ci France. cent quarante et un mille bu dee ci zone Afrique Guinée équatoriale andi nañ ci jaayante trente mille ci décembre bi te Tchad andi nañ ci jaayante bi ci weeru décembre quatre vingt mille kon boo jëlee li ñu jaayante ci weeru février ci weeru weeru décembre deux ci zone Afrique mi ngi toll ci cent dix mille bu dee ci jaayante bi ci zone national mooy ci biir réew mi mi ngi toll ci cinq millions huit cent vingt mille trois cent huit. moo fi ñëw ci jaayante ci wàllum liggéey bi lu bokkut ak carte yi ci weeru décembre deux mille vingt totalu jaayante ci biir réew mi ngi toll ci cinq millions huit cent vingt mille trois cent huit bu fekkee ne jël nañ totalu jaayante yëpp ci weeru décembre deux mille vingt mi ngi toll ci six millions soixante onze mille trois cent huit six millions soixante onze mille trois cent huit kon buñ boolee li jóge li jóge ci biir réew mi ak bitim réew ak jaayante yi ci carte ak Russie ak jaayanteeg lépp mi ngi toll ci dugg ci biir Touba ci kanam ci weeru décembre deux mille vingt mi ngi toll ci deux cent trente millions cinq cent quarante cinq mille soixante huit francs deux cent trente millions cinq cent quarante cinq mille soixante huit francs kon ñu ñëw ci li nga xam ne moo génn ci compte Touba ca kanam ci weeru décembre deux mille vingt dañ koy tàmbalee ci sànce poste de santé bi Touba ci kanam defar ca Touba Ndaam. ci weeru décembre deux mille vingt li ci dugg mi ngi toll ci quatre millions sept cent cinquante huit mille bu dee ci chantier université ba ñu fàttali ni Touba ci kanam jël ab bâtiment war a defar mu tolloon ci huit cent millions ci weeru décembre deux mille vingt def nañ ci lu toll quatre millions neuf cent un mille sept cent cinquante bu dee ci chantier poste de santé bi Touba ci kanam defar ci Touba Njaareem la fa dem ci weeru décembre deux mille vingt mi ngi toll ci cinq millions deux cent trois mille cinq cent quarante quatre bu dee ci poste de santé bi Touba ci kanam defar ci quartier Daaru Xadim ci biir Touba li fa dem ci weeru décembre deux mille vingt mi ngi toll ci cinq millions deux cent quatre vingt douze mille trois cent quatre vingt dix ci weeru décembre commission communication def nañ ci lu toll ci deux cent cinquante cinq mille. totalu charges fixes yi mooy salaire yi ak liggéeykat yi nekk ci Touba ci kanam cinq millions deux cent sept mille bu dee ci total budget fonctionnement. moom it un million bu dee ci opération defar yoon yi ku ne xam ne Touba ci kanam mi ngi defar liggéey bu mi ngi def liggéey bu am solo bañ tàmbali woon ca jamonoy màggal ga mi ngi wéy ba léegi ci ñu ngi toll ci biir liggéey ba léegi ci weeru décembre deux mille vingt li ca dem mi ngi toll ci soixante treize millions deux cent trente neuf mille huit cent soixante dix soixante treize millions deux cent trente neuf mille huit cent soixante dix ci weeru décembre deux mille vingt étude de contrôle ku ne gis na ni ay atelier ak ay ndaje yu am solo ak yeneen yu ci aju defoon nañ ko ci ci weeru décembre bi la ca dem mi ngi toll ci million. bu dee ci commission réalisation fa bugg ci weeru décembre mi ngi toll ci quatre vingt mille francs ku ne gis na tamit ni Touba ci kanam ak waa coordination Italie ak mbokki taalibe yi nekk fàggu nañ ay camion sapeur pompier ak ambulance. taw mi ngi ci yoon wi incha allah xam naa ne léegi mu agsi ak yeneen frais yoo xam ne mi ngi dugg ci mi ngi dugg ci euh, oto yi nekk ci Touba ci kanam ak camion yeeg lu ci aju ci weeru décembre deux mille li ci dem mi ngi toll ci seize millions sept cent quatre vingt et un mille quatre bu dee commission massification mooy euh, yaatal bi ñu def ci biir dëkk yeeg li aju ci journée yi ñu doon def ci décembre beeg fin d'année beeg lu ci aju li ci dem mi ngi toll ci trois millions soixante seize mille. am na itam ay matériel yu bureau matériel yu jëm ci yoo xam ne liggéey bi ci la jëm mu nekk ci jëm ci bureau bi moom itam def nañ ci weeru décembre deux mille vingt cent vingt cinq mille francs frais mooy jëm ci jamono ji ñuy bale dëkk beeg aju ci ajoo yu mel noonu Touba Ca Kanam def na ci cent soixante mille francs am na it yeneen frais yoo xam ne bureau Dakar la moom itam douze mille deux cent francs frais bancaires yi moom mi ngi toll ci cent trente mille quatre cent quinze kon bu ñu jëlee décaissement maanaam li nga xam ne moo génn ci compte yi Touba ci kanam ci weeru décembre deux mille li nga xam ne moo génn ci compte yi ci weeru décembre ci Touba ci kanam mi ngi toll ci cent vingt et un millions deux cent quatre vingt quatre mille neuf cent quatre vingt neuf cent vingt et un cent quatre vingt quatre mille neuf cent quatre vingt kon boo jëlee li nekkoon ci compte yi Touba ci kanam ci weeru novembre deux mille vingt mi ngi tolloon ci sept cent soixante millions huit cent dix sept 760 millions 817 mille 682 moo ci nekkoon ci 31 des ci 30 novembre 2020 li des li des ci compte Touba ci kanam ci weeru décembre 2020 mi ngi toll ci 870 millions 77 mille 761 870 millions 77 mille 761 ñu ngi sant ñëpp di gërëm di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi la te maskani Touba